Ce mercredi 10 mars 2021, le ministère de la Santé de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1390 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,22%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 63 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 93 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu de 37 cas, dont 6 à à Rifusque, 3 à Amitié 2 et Liberté 6, 2 à Dakar Plateau, HLM et Kermbaïfal, à Wagouniaï, Grand Dakar, Liberté 3, Derklé, Almadi, Cité Djilimbay, West Foire, Parcelles Asseni, Scat Urbain, Djamnyadjo, Grand Bao, Azur et Cité Taco. Dans les régions, Nous avons eu 56 cas, dont à Thiès, 8 à Kolda, 7 à Kédougou, 4 à Saint-Louis, 3 à Richard Toll et à Ziguinchor, à Kaulach, Kebemer, Kumpentum, Louga, Sali, Mbour et à Darmousti, Diofior, Fatik, Joal, Ndofan, Salemata et Touba. 283 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mardi 9 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 36 195 cas ont été déclarés positifs, dont 31 467 guéris, 935 décédés et donc 3 792 patients sous traitement tey bésu alarba fukki fan ci weeru mars mi nekk ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak ñett téeméer ak juróom-ñeent fukki test yi ñu def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 fanweer ak juróom-ñaar ci gox yi juróom-benn ci Mariste ak Rufisque ñett ci Amitié 2 ak Liberté 6 ñaar ci Dakar Plateau HLM ak Kër Mbay Fall benn ci Waagu Ñaay Grand Dakar Liberté 3 Derklé Almadi Cité Djily Mbaye Ouest Foire Parcelles Assainies Scat Urbam Diamniadio Grand Mbao Thiaroye Azur ak cité takku ci région yi am nañ ci juróom fukk ak juróom benn ci gox yi fukk ci Thiès juróom-ñett ci Kolda juróom-ñaar ci Kédougou ñeent ci Saint-Louis ñett ci Richard Toll ak Ziguinchor ñaar ci Kaolack Kébémer Koumpentoum Louga sali mbuur ak Pout benn ci Daaru Musti Diofior Fatick Joal Ndofane Salémata ak Touba ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett si malade yu entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen doon topp ci biir kër yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee ñeent fukki malade ñoo nekk réanimation juróomi malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb talaata juróom-ñeenti fan ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak juróom-benn ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak benn ak ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar wér nañ si juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar si lalu hôpital yi ak malade yi xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi